man lima ablay wad tek tegu ko makissal ci tis parce que makissal ci complot bi mo don comploteur en ah, chef moko gemlo ni idi day coup d'état coup d'état rampant coup d'état debout mahmoud salé jar fele moko gemlo ni idi dala enregistré ah, waxi nene moo ko gëmloo ni Idi am na alal joo xam ni kenn xamul lu mu tollu denc na ko ci àddina bi mën naa coup d'état mën naa sax jënd ay mercenaire et yooyu yëpp tiital ko ba mu dal sama kaw gis nga bi ma demee dikk commissaire bi enquête ba pare ne vraiment fii daal chantier de Thiès yi ñuy wax gisuma fi lu ñu toppee waa ji ne ma toogal ci bureau bi ma xaar procureur pour nga ñibbi ba loola demee ñom dañu dal di créer benn bulletin de renseignement Macky Sall mii ak ñamu yilif ne kër Idrissa Seck fekk nañ fa xaalis bu ni gàññ fekk nañ fa ay machine yu graw graw garaaw fekk nañ fa ngànnaay loola mo indi deuxième inculpation atteinte à la sûreté de l'État gis nga ba ñu ñëwé def perquisition gisunu dara ñu wër fep gisunu dara bañ demee di rendre compte Ablaye Wade dañu leen may yéen mais xanaa bu ngeen di inventé sax ngeen def ci lu vraisemblable ndax yi ngeen ko jiiñ yéen am ngeen ko mënoon ngeen ko faa déposé sax photo ko walla filmer ko walla fekk fa ay nit mais lu leen gëlëmloo ba defuñu ko yàlla mooy aar doomu aadama bu la teralee def la chef d'état bu duggoon fi mu nekk nii ci salle bi maay njëkk a jóg bala maa toogaat mu toog yéen ñëpp da ngeen di jóg bu waroon a jaar ci tëli bii surtout Alaaji Maalik ak surtout Serigne Touba ak surtout Ndiassane Limaamu ñëpp ay taxaw ba mu jàll mais teraanga jooju doy na pourquoi ngay jël doole jooju nag di ko xeexe ay nit di fayonte di revanche Du rancune je ko je vais l'écraser je vais le réduire à sa plus simple expression non na dawal yermande, na baye le mu dem na baye Karim mu ñibisi. au moins bu defee loolu danañ faté ñaawté fi. puisque yàlla moo ko wax innal hasanat yuzhibna sayiat. jëf ju baax li tax mu baax combustible buy lakk jëf yu bon